asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal moo dellu si di leen siyaare bu baax di siyaare mboolem kuy top Fall 94 Walf Sénégal ñu ngi jaajëfal bu baax a baax a baax ñi nga xam dañuy topp Fall 94 Walf Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal bu baax gis nañ ànd gi nga xam ne nii yéen a ko ànd ak ñun jàpp ci seen bi bu baax vraiment loolu day wane ne rek Sénégal rek a leen ñor waaw loolu day wane ne tamit wax dëgg yàlla analyse yi ñuy def euh, yéen a ñu ciy jàppale di ci indi seen conseil yëpp rek macha allah kan Fall 94 Walf Sénégal jaajëfal na leen bu baax a baax a baax tey nag dañuy ñëw ci benn vidéo vite fait vidéo boo xam ne wax dëgg yàlla déception la daal ci gisin ci déggin ak ya ci aju muy sunu capitaine Koulibaly waaw capitaine Koulibaly nag wax dëgg fa yàlla ku nekk xam na ni moo doon takk brassard bi ci euh, ci CAN bi. yaakaar naa ne nag loo xam ñaar fukki at ñu ngi koy topp di ci daw ba benn bés sunu borom jox na ko eh, grâce capitaine bi nga xam ne ni moo moom Koulibaly moo takk capitaine bi mu nu nag wax dëgg yàlla muy koo xam ne jàmbaar la gaynde la mën a footballam mën a défense am kenn wéranteetu ko ci àdduna bi nga xam ni bu ko neexoon mënoon naa jël nationalité France da koy am waaye deful lool dafa bàyyi lépp ñëw xeexal Sénégal vraiment muy muy loo xam ne nii vraiment ci déggin lu daw yaram la xam naa ni kon euh, nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax téléphone portable am bii nga xam ne nii ci la ay données personnelles am ak yëpp nekk ñu dem jël ko vraiment loolu nekkul loo xam ni lu rafet la nekkul loo xam ne lu rafet la ci image nekkul loo xam ne ni lu lu lu rafet la ci déggin kon nag képp koo xam ni da ngaa jël téléphone am bi képp ku jël téléphone am bi bokk ko mën a yóbbu kum ko mën a jaay bul ko jënd waaw bu fekkee ndax données personnelles yi nekk ci euh, téléphone am bi parce que budul dara sax téléphone am boobu mu jël tey jii bu fekkoon daa soxla xaalis wala lu mën a bu ko sax doo koy may yaakaar naa ne tamit wax dëgg yàlla waroon naa am xalaat am xel xam ne ak réew mi ak ni ñu sonne ak li ñu daj ci lii ñoom gaynde yi tey ñu indil ñu ko sunu capitaine ñu dem jël téléphone am boo xam ne ay données personnelles am ci nekk te li ma leen wax ko xam ne mënoon naa jël nationalité France bàyyi loolu yëpp ñëw Sénégal xeexal Sénégal vraiment loolu tamit wax dëgg yàlla ah, ah waroon nañ cee ah, jàngewaat bu baax a baax a baax a baax képp koo xam daal jël na téléphone bi ngir yàlla ngir yàlla téléphone bi nañ jël téléphone bi ñu delloo ko borom bi ci des nag mooy wax dëgg yàlla police Sénégal na ci def liggéeyam ndax lii dafa nekk loo xam ne nii. Euh, lu sérieux la koo xam ne yow yaay koo xam ne yaay capitaine Sénégal ñu jël sa téléphone vraiment te nit ñi tamit wax dëgg yàlla yu mel ni dañ ciy profité daal waaw waaw te lii mën naa ñàkk daal waaw ndax xam nga euh, téléphone bi da koy dem jaay rek wala mu téye ko xam nga waaw xam nga te loolu yëpp mën naa mën naa ñàkk daal mais danay personnel bi nekk ci biir ngeen di xalaat da koy soxla waaw loolu daal dañ ne woon ci def benn vidéo